kii yi leen ak jàmm l'observateur delluwaat na si mbir yi xewoon cessation bu EDK si diwaanu Sanaar ak jiyee ji nga xam ne moo fa xewoon ay sàmba songoon ko ngir foqarti alal ja nga xam ne moom la ñu liggéeyoon jàmmaarloog takk der ya ba benn xale bu góor ñàkkoon si bakkanam l'observateur xëy jox kàddu gi visile bi nga xam ne moo ci jële woon ay gaañu-gaañu di wuyoo si turu seeni njaay am lu toll si juróom fukki at ak ñeent di nettali jiyee ji ni nga xam ne noonu la demee woon foofu si station ba ak congu ga ne mu dem woon dëgg muy nettali si biir yéenekaay bi naan moom xaw tut ba kanam daat siy des yéenekaay bi di xibaar ba léegi naan Isma Sow moom mi nga xam ne moo di gone gu góor ga am ñaar fukki at ak ñaar moom la ñu faat si googalee jàmmaarloo ñu bëggoon koo suul si sëgu pàll xaalis ba gàntaloon ko moom moomee yéen kaay bi di xibaar naan mujj nañ ko denc ci benn village boo xam ne moo tudd Mañang jege Ross Béthio source anaan xew-xew boobu xewoon sa diwaanu Sanaar nag tax xalifu bu paal lankoon ñu suul Isma Sow si sagu paal ya indi na ay jeexi jaaxa si ñi nga xam ne ñoo di borom xam-xamu diine yi fii si biir réew mi day waxtaankat oustaz Alioune Sall naan l'islam may na ab xalif ngir mu daal di nangu wala mu gàntal ñu suul doomi aadama si ay sëg yoo xam ni bii si kilifteefam la nekk yooyu lay kaddu nag imam Kanté moom koo dégg ndaxte moom nee na jàngul fenn foo xamante ni bii nit dina jóg ngir xalaatu boppam képp daal di gàntal nit ñu mën ko suul si ay sëg loolee dëppoowut ak njàngaleem lislaam Ahmed Khalifa Niass dëppook kàddu ki nga xam ne moo di imam Kanté naan donte sax nit koo xam ni bi faat na lu toll si benn million doomi aadama te muy jullit dañ ko war a suul si sëgu jullit yi oustaz Maodo Faye si biir yéenekaay bi source a ba léegi naan comme que xam nañu ne gone gu góor gi nekkuloon góor jigéen mënoon nañ ko suul si sagu jullit yi loolee l'islam terewu ko waa Grand Place naan loolu kay coow dëgg la jur si ñi nga xamante ni bii ñoo di waxtaankatu diine yi daanaka seen i xalaat dëppoowu ci des si biir waa Grand Place ba léegi ak Basirou Ba mi nga xamante ni bii moo jiite collectif bi nga xam ne moo di aar suñu moomeel moom mu ngi dellu siwaat si coow li nga xam ne moo am si seddale gi ñuy seddale jiwu gi fii si biir mi moom li mu jàpp moo di ngir loolee ñu mën koo saafara nag seddaleem jiw gi dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoo di takk dee yi maanaam armée bi ñu mën koo def Isma ni waxee moom mi nga xam ne mooy président aar suñu moomeel aar li ñu bokk ak ñi nga xam ne ñoom la seqal kuréel gii di ñoo lànk ñoo bañ yépp boobulee collectif nag yéen kay di xëy di wax naan ajuma ji nag ñu ngay bëgg a foofu sa place de l'indépendance source anaan moom kay ajuma ji ajuma ji nar a tàng lay doon fii si biir réew mi ndaxte collectif bi ñoom ñëpp dañoo bëgg a wàcc nag foofee sa place de l'indépendance maanaam lu soriwul dara palais de la république les naan ñoom ñi kay fañ ko àpp sax daa sori maanaam bu ñu amee autorisation bu ñu ko ñàkkee yëpp nee nañu danañu dem si place de l'indépendance tax le quotidien naan ñoo lànk indépendance la bëgg maanaam place de l'indépendance la nga xam ne moo jëm si wàllum yokk dem courant bi ak teggi gu ñu war a teggi loxo Guy Marius Sagna ak ay ñoñam moom kay fañ ko teg sax daa sori bu ñu amee autorisation bu ñu ko amul yëpp dinañu amal boobulee ñaxtu ndaxte Alioune Sall mi nga xam ne moo nekk si boobulee collectif mu ngi naan collectif bi def na lépp lu mu waroon a def maanaam jébbal nañu préfet ngir mu mën leen a autoriser préfet bi nag lu mu def moom càkk waaye ñoom it dinañu mars foofu sa place de l'indépendance mën naa am duñ ca yegg réew mi quotidien di xëy di xibaar naan ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon di Guy Marius Sagna ak ay ñoñam audition yi dinañ ko door ci àllarba ji les éco naan Babacar Diop Malick Diallo Biaye Ousmane Sarr ak Souleymane Ndiaye ñoom la doyen des juges war a diglu tey ji Guy Marius Sagna ak ñi ci des nag ñoom ni niki ëllëg lañ leen war a diglu ci alxames ji bala ñoo yegg si ajuma ji nga xam ne njort nañu ne buñ moytuwul dina tàng lool ndaxte yéeni kaay bi di réew mi quotidien mu ngi naan takk der yi jamono ji ñu ngi si place de l'indépendance di fa xaar ñooñee ñu ngi naan duñu may sax ñett nit képp ñu mën faa dajaloo waxuma la ak mbooloo di doxu ñaxtu foofe jógee si ñaxtu beeg place de l'indépendance wutali si diwaanu Rebeuss fekk fa ki nga xam ne moo di Seydina Fall Bougazelli moom biñ doon toppee mbirum faux billet ba jamono ji mu ngi si kaso bu xool nekkinam ak ni nga xam ne noonu la fa toogee naan Seydina Fall Bougazelli jamono jamono ji nag daa jër yoon woo xam ni bi sexualité def la jëm maanaam bëggul sax bokk ci promenade bi nga xam ne moom la leen yoon may moom saa su nekk bu nit ñi génn di doxantu moom mu ngay sëgg sa xasida ya di duru sa ka nafar ak di jàmm suñu boroom jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah